comité de pilotage bi aju ci kuréel gi di junnatul liman nazamaho doon amal ay tukkey nemmeeku ci yenn ci bërëb yi nga xam ne nii équipe technique yi ñu ngi fi amal liggéey bu am solo fii ci suura jàpp gede bokk ci bërëb yi nga xam ne ni jamono yi ndox ma sonal na leen lool ci jàpp ndi nag njabootuk sëriñ Daaru Asan Njaay booba ak léegi ñu ngi fi amal liggéey bu am solo ginnaaw ay jéego yoo xam ne nii ñenn ci commité de pilotage boobu ñëw nañ doon ko saytu li ñu gis fii nag ba tàmbalee ak léegi dal na seen xel lool. sant yàlla bu baax ci li ñu gis ci terrain bi te fii di Poulailler bi mu fi ñëwee li gën a sedd suñu xol ñu ànd ak équipe technique muy commission technique bu Junatun euh, ñoom Baye Alla ñoom sëñ Amadou Samb ak euh, ñoom sëñ Cheikh euh, l'infatigable bi nekk ni sëñ Cheikh bu Touba ca kanam. Euh, li ñu gis daal mooy euh, waa barab bi su ma nee waa kër sëñ Daaru Assane Ndiaye rek tuddaale naa waa surna yëpp dama gis ñoom ñu takku takku koo xamante ne keroog ba la waxoon ci njëlbeen ne dañoo ñëw ndax dañoo am ndigalal seen kilifa ngir ànd ak ñun liggéey bi ku ñëw fekk leen ci ku dem bàyyi leen ci loolu nag moom nañ ko waxe woon defe nañ ko nu kawe njot ndax fii ku fi ñëwoon ay fan tuuti si ginnaaw gis ne da nga naan est-ce que ndox mi wàccaatul lu tolloog un mètre baa lu ko jege ndax fii boo fi doon xuus faw di nga xam ne di nga dem ba foo xam ne dootoo mën a dootoo ci mën a teg dara ndax ndox mi fii la lay loolu kon euh, bokkoon na ci barab yi ñu gën a jaaxal ndax dafa doon ay yoonu ndox yoo xamante ne fi ñu toll nii pexe yi ci war a am faw kilifa yi bu ñu ko xoolee ay dafay laaj ay ouvrage ay ouvrage yoo xamante ne yu structurant yoo xamante ne du doon loo xamante ne dañ koy colmater liggéey yu mag la war a doon waaye nag fi ñu toll nii ak fi ñu toll lool ak ndigal li ñu jot fas nañu yéene li ñu mën lépp ñu def ko benn pompe fi nekkoon fi ñu toll nii renforcer nañ ko beneen pompe. njabootuk sëriñ Darou Assane Ndiaye gannaaw bi ñu jotee ndigal ci seen kilifa ñoom itam dañoo daal di feddali seen ak laxasaay soobu ci liggéey bi ànd ko ak équipe technique yi guddi ak bëccëg suba ak ngoon seen yitte nag du lenn lu dut ndox mi jóge fii ci sura jàpp Guédé jéego yi nga xam ne ni kilifa yiy jóge ci kuréel gi def na ci ñoom mbégte akuk cant. bi ñu tàmbalee liggéey ak léegi mi ngi ciy def yitte joo xamante ne si yitte ju kawe la dëgg yàlla kon nag ñi ngi sant bu baax xam naa kàddu yi moom du jar muy gudd ñi ngi sant bu baax cay gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. gannaaw Guédé jëwriñ yi dañoo daal di wéyal seen tukkay nemmeeku ba benn ci bërëb boo xam ne nii ndox mi bari na fa lool nag. moo di Cambissoura waaye équipe technique bi nga xam ne nii jamono yi ñoo fi féete ñoom itam di fi amal liggéey bu am solo ba li ëppoon ci kër yi tàggale nañ leen ak ndox ak seen jàqare tax na nag ñenn ci askan wa di yëkkati kàddoy cant jëmale ko liggéey bu am solo bilee maa ngi sant maanaam sant gi maa ngi ko tàmbali ci sëñ Muntaxa mm-hmm. yàlla na fi yàgg lool te ndax lii day ah guleet tey kon nag loolu nun nun waa nun waa Cambissoura yi noo ngi ci sant sëñ Muntaxa cant goo xamante ni am na tàmbaliwaay amatu yem ah bu loolu jàllee yéen ñi nga xam ne dégg nga yéen la yéen la jiital ngeen di ko saytu itam ah sant nañ leen cant goo xamante ne nii cant gënu koo kawe moom. sant rek nag sant nan lool. kon nag ñu ngi sant waaye Hizbut Tarqiyyah di sant sëñ Mat Diop mais nga xam ne moom itam teg nañ liggéey bi ci loxoom waaye awale na ko ci yoon ndax ba mu fi nekkee ba fi mu nekk nii fii dawul daayut fii la xëy suba. ba guddi fii lay toog. kon daal fan yee ca gannaaw ak tey mel na ne xar kanam bi changé na. changé na te dañoo bëgg mu gën a changé nag. nii ñu ko nemme ko ci Touba Guédé sura ak yeneen i bërëb yu ci mel ni Daaru Xuddoos nga xam ne bi liggéey bi tàmbalee ak léegi équipe technique yi amal nañ fa ab liggéey bu am solo terewul nag benn yoon liggéey bi des loolu tax na nag jëwriñ yi ngànk liggéey bi di soññaat mboolem julliti ak taalibe yi ngir xamale leen nag liggéey bi des na ñu gën a fedd laxasaay gi gën a sobuwaat moo tax ñuy woowaat mbokki taalibe bi ñu xam ne barab yu mel ni amaat na ci Touba ndax bu ñu xoolee fi nga xamante ne ndox mi jóge na fa xeex ak xare moo ko fa jëlee loolu nag bu ñu gaawee rek yaakaar ne dañuy wàcce suñu loxo soxla nañ ay tuyaux soxla nañ ay pompe soxla nañ carburant soxla nañ tamit ay jëmm yoo xam ne ci biir Touba dañoo laxasaay yu ni kuréel bii sëñ Cheikh na ngeen di jottali kilifa gi ndax ñun noo ngi koy xoolee bëtu sëñ Bay Fàllu di ko xoolee bëtu njabootu njabootu sëñ Daaru Asan gépp kon ñu leen di sant di leen gërëm. kuréel gi nag ginnaaw bi leen sëriñ Muntaxa Mbàkke Bachiru xalif général des Mourides joxe ndigal jox leen tur wi ci ñaar fukki fan ak benn ci weeru septembre 2024 seen obligé nag dañ ko daal di door ci ñaar fukki fan yi ak ñaar samp seenum penc fii nga xam ne moo di kër sëriñ Touba gi. fasantikoo ci ay wànqaas suba ak ngoon gudde ak bëccëg benn yitte rekk lañ am lii sëriñ Muntaxa Mbàkke di xaar ci ñoom ñu mën ko matale